seen ruuy yi jaaxal fii ñu nekk tamit ci àddina jaaxal ndax fa nu jëm ëllëg moo jaral ëllëgtoo te yàlla waroon nañu fa suñuy dëkkuwaay ak suñuy mbooy ak ñan nar a àndal di xam waaye dama leen bëgg a xamal ne seen jéeri a fii la ci waxtaan ni yàlla dafa jox ay mbooy sëriñ Ba fii la ko defee ci dugg ci bàmmeel fogg diw na ko doomi diw ak diw jógal ndax bi la suñu borom di rey tàgguwum dama tukki woon kooku jug yenn bagaas na ba ko ko soxlaa mu ne ah, nekk ko mu ne xanaa bu ko dul si waat ci àdduna continue di la liggéeyal moom sëñ mu jëlee ko moom li ñu jëlee ko moom bàyyi ko mu delloowaat waaye dañuy defe ne ñoom cër yooyu yëpp def la ñuy def ba pare di dem taxañ ko yóbbaale ñu benn ko. déedéet loolu moom fi ba tey yii ñu leen ciy woon yu ndaw la yu teel a teel waaw yu ndaw la yu teel a teel ay faj aajo nii yokk fan mu doomu aadama. nit war a am doom war a am doom rab wala lu bon wala nangam ak nangam xanaa xam leen yéen seen jëm yi ñun ñu jaral. xel bi mu demee jaaree Sëriñ Tuubaa da koo dalal waaye bi mu ko dalalee daa woo ay doom la leen dem leen nuyu seen bàyyi jéeri waataan ku ne xam ne rek seen jéeri waataan daan ànd ak góor gu sant ngeer ak lëy am na koo xam ne ne bu doon Sëriñ Tuubaa ñëwee di jox loxo mu naan ko diw la mu wax ko li ko yàlla wax ci ci waaye wax ni ci biir ñeenti nit wala juróomi nit daal ci doomi Sëñ Tuubaa la ko fekk ki ko njëkk a nuyu daal moom dana ko yow de saa borom nee na da ngaa war a sori sa baay xëy na fos naa góor ñaareel bi fi dugalaat la xool sëñ Diélu waat na ko yow de saa borom nee na sa baay daa war a am ponkal boole boog yow foo jëm mu yem say bagage ñetteelu nuyu bi. suñu jiir waalaan dana sa borom mi a jege sa baay fu mu noddee nga dem mu joxee loxo dan ne suñu jiir waalaan dan kokkal la ñu ba si yàgg a ko ah yow de Mouhamadou Lamine yow naa màngo ci sa bu la dégg nag ñu naan ñaari góor yi du mbokk ngal kat waaye ku nga xam ne tamit ay wëlliw am na ci yu ñuy jaxasoo ak yu ñu dul jaxasoo ma ko du kasi xam ni ma ne fu ko may ci gaay